asalaamaaleykum Modou ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sénégal. allo ma waaw maa lay sant di la di rafetlu invitation bi jërëjëf Khalil. ok ñu fàttali yow yaay ànd sukkali HLM mais ba ngay ñëw ci yoon bi j'espère que amoo problème mu jàll ci yoon bi ki egg ndax ndox bi. waaw waaw xam naa bi may ñëw nag am na yenn yoon yoo xam te ne dama ko mujjee contourner parce que dafa bëri woon trop ay ay ay ndox surtout ak tali yu yàqu yoo xamante ne daal maa ngi koy romb si euh, si yoon bi. donc xam naa li ko waral yëpp mooy manque de canalisation yoo xam ne dañ ko war a kii dindi xoolaat bu baax parce que chaque année avant taw bi di ñëw hivernal bi normalement ñoom dañoo waroon am ay ay services yoo xam te ne dañuy dindi aiguiller defaraat ko bu baax pour ndox bi bu ñëwee mun mën a jàll xam naa lool yëpp moom it euh, problème la daal. mais ci loolu nag nga jàngatee inondation yi encore année bi parce que soo xoolee même daaw c'était presque la même chose. Mm-hmm. donc euh, ba ñuy dégager woon fi ay milliards annoncé ay plans hors ak yooyu. donc euh, surtout zone Kër Massar bi actuellement euh, foofu euh, ñoom ñoo si gën a sonnaat encore donc naka nga jàngatee loolu ak xaalis bi selon toi fan naka lañ ko dégager pour mën a andi solution par rapport ak inondation waaw waaw xam nga affaire inondation en global globalité dafa nekk loo xamante ni dafa day laal fépp même dëgg la Kër Massar mais ñun même au niveau de HLM. ñun am nañuy quartier yoo xam te ne day inondé lu mel ne HM5 si benn côté day inondé marché bi day inondé mais loolu lépp ko waral mooy mooy mooy mooy manque yu bëri ça dire que service yi war a gérer yooyu war a liggéey surtout surtout service su état yi dañuy war a am ay compétitivité ça veut dire que dañu war a am lu ñu leen noté de telle sorte que yu bëree bëri ñoom dañ dañ ko mën a def xam ñu ñu mën a atteindre seen objectif parce que mën nañu wax service état dëgg la mais am na loo xamante ne lu bëri service état yi boo leen joxul yenn moyens yi wala nga teg fa ñoo xamante ne ñooñu amuñu benn compétence affaire de yi donc dañuy jël ay nit yoo xamante ne amuñu benn qualification ñu teg leen foofu donc ñeneen ñi ñi ñi nga foor a teg yaa xeex wala dara donc loolu yëpp moom it ay facteur la xaalis bi ñuy dugal am na foo ne boo ko fa dugalee c'est c'est normal mu mel nii parce que ñi ñi ko war a gérer mooy mooy appel d'offre yi yi war a jël ay ay services externes yoo xamante ne ay ay société privée lañu pour nga mun leen ko jox mais dañuy xool ñoo xamante ne tey ah non seulement benn ah euh, amuñu benn benn benn qualification si loolu seen ay mbokk lañu doon wala ñoo xamante ne kenn xamul leen ñu bugg leen jàppale jox leen si loolu muy indi li yëpp donc li li indi li mën a indi inondation dafa bëri. genre détournement xaalis bi quoi en quelque sorte. donc mënoo ko wax loo xamante ne affaire état la donc doo si mën a xuus mais damay wax rek en globalité par rapport ak ak ak expérience bi ñu am. si loolu aussi état bi muy urbanisme dafay seetaan parce que nga gis koo xamante ne ah bu boo nee tabax R plus 1 dem tabax R plus 7 wala 8 wala R plus 4 wala ñu ñu ñu ñun HLM am nañu benn problème boo ne si ah, canalisation yi la ñuy tabax te fu ñu toll ñu suñu problème moo gën a garaaw parce que am nañu benn hémisphère boo xamante ne chaque jour ñu chaque année ñoo ngi wax ne bu bu explosé HLM tey am problème Fass am problème ñëpp am problème te ñoo ngi seetaan te inondation bi. tey yaa ngi wax rek yaa ngi wax euh, fële euh, euh, kii Rufisque ak Kër Massar mais xoolal xoolal li xaw zone de captage mais canal bi moo fàq mhm. dem fële parce que foofu zone ndox la woon mhm. mais ñoom bu ñuy bu ñuy dagg bu ñuy def lépp duñu duñ sax calculer ëllëg mhm. te tubaab yi bu ñu doon defar lu mel ni HLM dañu prévoir yu bëri mais xoolal tey HLM maire bi ku ko neex mu jox ko tey délibérage kii nu mu tudd permis de construire boo xam te ne autorisation de construire amul benn sens. ah donc war a tabax kër yoo xam ne R plus 1 rek la war a R R kese. Mhm. réseau si léegi ñu ngi gis R plus 4 ci kaw wala mais est-ce que yaakaaroon ni instant bi par exemple benn si la ñu waroon a prévoir canalisation bien avant ñuy commencer tabax. non xam nga tubaab day prévoir. Mhm. parce que canalisation bi ñu ko doon calcul bi ñu ko doon defar lu mel ne HLM. parce que HLM laa mën a wax parce que fa dëkk te ñoom am nañ am canalisation yoo xam ne yàgg na bu ñu ko defaree. Mm-hmm. te mosul am problème temps ñun mosu am benn problème. mais avec l' du du marché ak ak exode bi ñëpp ñëw loolu loolu tax na lu bëri bëri feeñ si loolu. Mm-hmm. donc moo tax euh, lu ñu mën a wax si loolu mooy dañuy prendre acte. Mm-hmm. par rapport ak ak ëllëg bu ñu ñëwee toog si mairie bi. par rapport ak vision bi ñu mën a am. parce que li li am. li am euh, Kër Massar ñun bëgguñu ëllëg mu am HLM. te loolu ñun ñun dañ ci war a euh, dañ dañ ci war a kii suñu àq bu baax par rapport ak ëllëg bi ñu toogee ci mail bi ci environnement bi mhm. ci xool naka la ñuy def pour lii dara ba ñu bett mais li xaw foofu moom moo xew HLM de ok waaw ok donc yàgg ci question inondation yi mhm. donc yow en tant que euh, leader politique ban euh, solution ngay mën a wax ngay conseiller autorité yi par exemple mën a solu pour andi saafara ci par rapport ak inondation waaw solution yi daal mooy man li ma li ma gis si si état Sénégal surtout si yenn responsable directeurs yi nañ ko def loo xamante ne day day day nekk ay appel d'offre même post yi ça pose problème mais service technique yi nañ ko jox ñoo xamante ne jàng nañ ko xam nañ ko te ñu bàyyi tâtonnage waaw léegi solution bi nag lu simple la parce que état am na ay ay structure yoo xamante ne mun na mun na prévenir lu bëri donc li may wax foofu mooy que nañu nañu gëm Sénégal te ñuy liggéey pour Sénégal te ñu xam ne fii dëkk la boo xam te ñu ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. waaw ok donc euh, ñu jàll ci beneen point muy élection locale yi ñuy jublu c'est vrai que boobu léegi coow mu ngi si judd surtout par rapport ak euh, euh, problème certificat de résidence ñu ngi dégg temps mm-hmm. yëpp dégg ko c'est donc yow situation boobu na nga ko jàng jàngatee. waaw li li aw foofu yëpp moo am fépp même ñun HLM. Mm-hmm. maire bi pour nga pour mu de jox la certificat de résidence dalay laaj. lan mooy motivation bi te amul droit boobu donc ñoom xam nañ ne li ñuy def xam nañ ko bu ñu bàyyi police ah, wala préfecture ñuy jox certificat de résidence yëpp du am problème mais police boo fa demee déposé boo demee si si si si fi ñuy inscrire dañ lay wax ñoom ñu ko jël bu maire lañ jël donc ils ont bien calculé te loolu dañ ko war a dépassé xam nga dëkk yu mel na Ghana tey ñooñu parti politique amul amul fitu sax taxaw ne day day présenté parce que loolu dañu ko génn seen constitution donc société civile rek ñoo ñëw taxaw pour pour présenté parce que ñooñu dañu avancé te loolu loolu moo feeñ si lu bëri par rapport ak ak ak muy opposition muy pouvoir donc il faut population bi jël seen responsabilité du Khalifa Sall moo mun a defar HLM parce que Khalifa Sall si boobu dafa war a rendre compte waa HLM parce que lim ñu tegal foofu suppakaane la ñu tegaloon boo xamante ne kenn xamul naka la ba pare mu dem bëgguñu sonalaat seen ay coalition yoo amul benn te loolu noonu. il faut nañ ci ñëwaat mais par rapport ak euh, élection locale yi. waaw euh, waaw li mu si mën a wax daal mooy nañu gëm ne yàlla moom kum fi teg rek day day day am mais affaire certificat de résidence ak domicile ak yooyu nañ si xoolaat ba même même ba si sax euh, yenn délégués de yi. Mhm. dañ leen exiger ay ay facture de courant donc te loolu yëpp mun mun na bañ a ñàkk. Mhm. waaw donc commission yi ñoo ngi foofu toog. Mhm. di xool di veiller mais commission yi moo ngi jàll normal. mais état moom lu mu bugg def kenn mus dara. ok donc par rapport ak euh, problème caution yi aussi ñu ngi laam-laame entre dix wala vingt millions donc euh, yow ban jàngat nga ci am. waaw xam nga dëkk moom xam nga élection locale bële dafa amoon problème parce que euh, quand état bi wax na ci dëkk foofu parce que dafa bëri trop ay ay mais quand même bu mu abusé di wax ay vingt millions ak ay dix millions quinze million mais man li ma gëm mooy yow bu fekkee ne da nga bëgg dem. dem euh, devant euh, la population tey pour pour pour ëllëg ñu fal la da war a am yenn responsabilité yu bëri da koy am segg boo baax na mais bu ñu si abusé moo tax ñun amuñu problème caution mais si loolu sax ñun dañu xalaat ne même bu ñu ko amee ñun mais am na Dakar ñoo xam te ne commune yi communes yi dañ fa nekk nekk ay ay ay ay ay nit yoo xam te ne wala ñu may chance mm-hmm. moo tax ñun it dañu xalaat war a créer benn coalition boo xam te ne bu tuuti prêt boo xam ne Dakar bi yëpp société yi fa nekk. bu ñu amul mooy ñu ñu mën a cotiser mhm. mu nekk loo xamante ne pour ñëpp la dañuy def benn coalition boo xamante ne bu mag lay doon parce que ñoom it ñooy def seen coalition mhm. mais coalition ñun bi ñuy def mooy solidarité mhm. mooy xool naka la ñuy def def partage ku mënul am pour dem ñu ñu teg caution globale pour ñu mën a dem ñu ñu jàppale leen pour ñu dem loolu ñoo koy xalaat waa ñoo koy xalaat pour xool naka la ñuy def pour dajaloo les sociétés civiles les chefs chefs d'entreprise yoo xam te ne dañuy ay entrepreneurs yoo xam te ne gëm nañ ne ñoom seen gox bu ñu ne ñoo ko war a defar mhm. te moom it ñoo xalaat daal. donc une coalition de l'opposition en quelque sorte avec. Euh, non co waaw du la. société civile boo ne ñoom bokkuñ ci benn parti politique. Mhm. mais dañu gëm ne seen gox bi nekk population bi ñoo la fa teg waaw tey man benn benn parti la am mooy HLM. Mhm. donc si biir si biir parti bi am na Sonko. am am na. waa Pastef. Pastef uh-huh. am na am na PDS am na lépp mais dama la wax benn anecdote bu simple. Uh-huh. ma sama secrétaire général muy Demba Gueye. Uh-huh. moom Pastef la bokk responsable foofu. mais bi mu xoolee dafa ne yow sa vision bi nga yor ak Ousmane Sonko benn la. donc yow laay jàppale. mais candidat Pastef bu bu bu ñu bu ñu déclaré HLM kooku moo nekkoon taxaw Dakar. kooku dafa rendre compte. ñooñu du moom rek même même même deuxième adjoint maire taxaw Dakar la bokkoon daw dem APR mais ñi dañuy fonto mais xoolal le candidat de Pastef ñoom amuñu fitu taxaw ne dañ damay yëg loxo dañuy xaar coalition am ah, mu amuñu sax xaalis bu ñu defee caution dañuy xaar ba coalition ñu am ñu daw dem dem dem wéeru foofu naxaat population bi si loolu nag dama la ñaan rek parce que foofu am solo du Sonko moom mën a defar HLM ñoom seen vision dañ ko war a xoolaat parce que ñoom bu fekkee ne législatif mën nañu demal dem wax ak population bi mais li affaire localité du Barthélémy Dias moo mën a wax foofu HLM naka la war a demee du Sonko du APR du kenn. nañu suñ ko defee dinañu xool ay leader au niveau de euh, de chaque localité xëy na jéem leen xëcc. waaw mais logique xam nga logique mooy tey. comme li li li li li euh, euh, Zakaria def mooy karimiste la. bokk si secrétaire foofu si général si ci HLM. moom it dafa ñëw parce que moom dafa am vision pour defar HLM. gëmul gëmul ne. du Karim moo mën a mun mën a impliqué si biir action pour defar ko ku fa dëkk moo ko mën defar man mun naa référé yu bëri ñun société civile lañ nekk ça veut dire que benn parti lañ muy HLM xamuñu kan mooy parti bi wala parti bi lu ñu gëm mooy benn parti mooy HLM te loolu lañ ko war a gëm léegi nag da gis ñoo xamante ne dañuy demoon élection bële daw dem dem dem wéeru am na koo xamante ne daw na dem si Bougane am na ko xam ne dem ça veut dire même chose ñoo ñëw taxaat te loolu noonu dañ koy xeex ñoom nañu gëm seen bopp bu ñu bëggee ne gëm nañu nañu ñëw teg caution dama seen bopp ba ñu wéeru si benn parti politique comme ñun. donc euh, su ma déggee sa wax dafa mel ni yow coalition boobu Khalifa Sall Karim euh, ak Sonko dafa mel ni àndoo ci alors que yow am nañu waa Sonko ak waa PDS yi nga xam ne euh, yéen a yéen a ngi ànd au niveau des HLM. waaw moom laa lay wax même parti au pouvoir muy muy parti opposition ñoo ñëpp ñoom ñëpp ñooyam lenn benn daal lenn laa gis loo xamante ne waa CD def nañ ko mooy wax nañu lu am solo parce que man mii si boppam am na nekk si man ñoo xamante ne CD lañ nekk. buñ bu ñu buñ bu ñu leen woowee seen parti wax leen dañ leen leen am nañu candidat ñooñu neutre mais loolu mooy logique mais ñoom mënuñu mënuñu nekk national ba pare nekk législatif ba pare bugg bugg laalaat si communes yi tey Khalifa Sall commune commune yooyu yëpp mu mu gagné woon yëpp yëpp la perte te amul benn maîtrise bu mu si te loolu danger la moom dafa war a rendre compte waa Dakar loolay wax ji parce que moom problème yi ñu indi yëpp moo ñu ko indi si commune maire bi ñu yor tey xool ni na ba benn boo ko yaakaar maire def kenn mënu la ko dara waa waa taxawu Dakar bu ñuy voté ñoom ñoo yëkkati seen loxo voté waa benn bokk du ñu wax dañu noppi ne pat mais loolu dañ ko war a dénoncé léegi nag gis na population bi yeewu nañu kenn du leen waxati kan mooy doon seen maire Barthélémy Dias nag na doxante foofu heure bu ko neex mais ñun suñu yoon nekku si xam la ñu gëm ñun HLM lañu gëm suñu yoon nekku si ville de Dakar parce que gis nañu ne loolu lañu lañu la ñu naxawoon ba ba lii am tey te ville de Dakar dara lu muy apporter HLM est-ce que doo ko yóbbu ci contexte par exemple intention bi tey jii euh, jéem a rassembler opposition bi yëpp euh, nekk benn bloc pour mën a xeex nguur gi donc est-ce que loolu aussi c'est pas un combat noble ci say bët pour euh, mën a ànd ak ñoom par exemple. waaw mais xam nga ñoom ils sont pas démocrates parce nax. parce que ak officialisé ñu ko ah, parce que sëñ Moustapha moo ko annoncé mais ba léegi ñoom ils bi moom suñu sëriñ la mais dafa loo xamante ne dañ ko dépassé parce que du sëriñ bi moo ñuy. décidé loo biir HLM sincèrement. du du du du ñoom ñëpp ku ne parce que ñun dafa am loo xam te ne dañuy xool même suñu diggante ak yàlla dañuy dañuy ay ay ay faits yu bëri yoo amoon Sénégal donc du du tey chaque chaque année. dañuy créer benn benn buzz coalition soi-disant que opposition xa ñun suñu yoon nekk aussi. opposition non buzz suñu yoon nekk aussi Khalifa Sall ak Sonko yooyu ñun ñun am nañu foo xamante ne ku ne si biir xol am na foo xamante ne fa la nekk. mais ñoom dañu war a parce que loolu mooy démocratie si dëkk ñoom bu ñu bëggee tey HLM euh, développé wala dëkk yu wala gox yëpp dañu war a nëët Sonko na dem na dem fële Ziguinchor lijjanti maire am euh, Khalifa Sall lijjanti Grand Yoff boobu Bougane dem lijjanti Saint-Louis ñoom ñoom ñëpp ku ne dem lijjanti euh, nu mu tudd Macky Sall dem lijjanti Fatick ñu suñu yoon nekku si ñun HLM ñun dañu engagé wu si benn idéal mooy xam lan mooy kay naka la ñu mën a def ba suñu dundinu foofu mu changé ñu bañ a nekk ay conseil municipal yoo xam ne ah bu ñu waxee prix ñoom ñëpp tàccu ah lu ñu war a voté mu jàll mu nekk loo xam te ne affaire partisanerie yi loo xamante ne amul benn sens ça veut dire que tey contexte bi ñu nekk dañ ko war a dépassé waa dañu bëgg tey ay conseil municipal yoo xamante ne biir HLM lañ dëkk bokkuñu si benn parti politique bu ñuy def bu ñuy teg ay projet dañuy nekk projet yoo xamante ne yu concret par rapport ak seen gox tey maa ngi gis UCG mooy mooy def liggéey bu am solo mais tey sa chaque commune dangay dégg ne koñ bu ne day def ay set setal mais ñun am nañu ay projet bu am solo par rapport ak set setal boo xam te ne tey mën nañu mën a permettre du ñu xaar ay set setal chaque chaque commune wala mais dañu teg ay ay ay ay ay système yoo xam te ne ah, ay direction yoo xam ne dina mën a permettre tey fu ne parce que boo set setal tey suba ndox kii da say amaat salteeg yëpp da say amaat mm-hmm. te loolu ngay gis chaque jour mm-hmm. donc muy santé muy éducation muy sport ah muy muy cadre de vie xam nga muy yu bëree bëri bëri xam nañu naka la ñu mën a def ba dund HLM changé. ci solo lañ nekk. ok donc euh, waxtu bi xooj nañu léegi xanaa ah, ñu bàyyi la nga joxe sa dernier message. waaw li may joxe message euh, rafetul naa trop lii tey mais li ma gën a am solo mooy tey li ma sol muy àndu sukkali ak waa basket dañu am benn partenariat bu ñu def boo xamante ne ñu ci gën a lu ñu ci gën a amal solo muy ñoom dañu nekk ay club club basket boo xamante ne souvent bu ñuy dem di basket wala dara dañuy am ay problème financier ñu xalaat ne. war ne leen calcul war war na leen defar benn projet bu tudd basket business boo xam ne lu mu leen permettre tey mooy joueurs yi fa nekk ñu dëkk HLM ñu former leen si basket si si si si infographie mont montage vidéo si sérigraphie si management de telle sort que ñoom tey lu mu leen mën a permettre muy jeunes yi bu ñu demee basket ba pare ñëw def formation bu ñu paree formation ba pare am auto emploi direct ça veut dire. ñoom bu ñu bu ñu wàccee dañuy dem foofu defaree ay t-shirt da ngay gis ku yor 1000 francs dem def t-shirtu 3000 francs yoo xamante ne après moom da siy gagné 5000 wala 7000 mu am lu muy yóbbu seen kër bu ñu calculer ñoo ñu non seulement équipe bi dina am revenu buy buy dugg si moom mais ñu joueurs yi fay kii te amuñu benn qualification mu mun leen permettre ñu am liggéey boo xamante ne seen bopp lay doon. te loolu loolu ñun suñu vision la ñoo ngi koy def si si sport ñoo koy def si famille ñoo ngi def si jeunes yi ñoo ngi koy def ay projets yu am solo par rapport ak ak développement HLM loolu mooy wax suñu vision muy ànd sukkali HLM ñun fi ñu toll vision boobu la ñu nekk donc ñoo ngi woo waa HLM bi yëpp ñu jàpp si mouvement bi te ñu rafetlu bu baax sa façon jotaay yi donc ñoo ngi ñoo ngi euh, ñaan suñu kilifa yi suñuy raq suñuy sœur ñu jàpp si te ñu xam ne li ñuy yëngu dëgg kase la ñun nëbbatuñu si benn parti nëbbatuñu si ay coalition ñun dañu taxaw parce que dañu gëm ne HLM ñu ko mën a defar mooy ñoo xamante ne dañuy nëët si lépp xaaruñu ba retraité ñu jox ko ñu jox la post post port defoo dara nga ñëw taxaw ne damaa bëgg maire loolu yëpp ay naxa naxamaay la ñun lu ñu gëm mooy développement local ku deful dara sa gox nga toog ba am benn age te gis nga foofu sax dañuy rappel histoire yu bëri gis nga ñiy jàng comme tey ñu mel ne ay Barthélémy Dias muy baara baara euh, bu nekk euh, fële euh, PDS muy muy muy maire Médina mais ñu dimbal di ñu wax nit yi jàng-jàng mais ñooñu def gestion ñi def gestion tey ñi def ay ay ay ay finance mais ñooñu un plus un égal deux la ñu xam mais ñun tey dañuy créer parce que ñun ay entrepreneur la du ñu bokk ñu ñoo xam dañuy toog di leen xaar dañuy créer parce que dañu xam ne lan mooy euh, valeur ajoutée par rapport ak ak dundit nit yi waaw jërëjëf jërëjëf Xale jërëjëf merci ñu ngi lay jaajëfal euh, Modou Dieng ñu jërëjëf jërëjëf